makki nag noonu la daan defee defal say looxóor ma teel a nga di ma politikal di ma tagg di ma xalabal ma teg sama conc guddiis gi ci say dossier makki moom noonu la daan gérer yi fi ngay def lu la neex ma di la ko gérer. waaw waaye nag du doo wax mukk Macky Sall ni mu yoree réew mi baaxul bis boo nee baaxul dossier yi am suite noonu la homme d'affaires yëpp am nañ ay dossier judiciaire moo tax gars yi bëri nelawutu ñu ngi ci àll bi di wëri sëriñ ak ñii ñii ñii seen kër yi ci ay saleeg gii ñu ngi fa tëj ay sëriñ ak waaye mm. yooyu taxut <laughs> yooyu taxut ñu mën leen a lijjanti kenn fàttewu leen du du du tee ñi toog naan ah fan yi man tudduñ ma de woo sëriñ ah sëriñ dafa mel ni man fàtte nañ kenn fàttewu leen heure bee jotagul rek ku sa ku sa dossier rek par exemple ñi ci tudd ñëpp pour ñoom heure bii nit ñi dañ leen a fàtte mais dossier boobu xam waxoon naa la dana ñëwaat ci pénc mi waa fan yi de ci ay fuite nànk-nànk waaw dana ñëwaat penc mi MC moom nee na mu ngi waaj a ñëw ak boobu man complet laa yor li aji ne la muy wax la muy nas la muy def nam ko bëgg defee yépp ma nga sama lox kon dossier boobu. <laughs> Euh, déggoo li ma la wax de naa yëngalaat réew mi nag. xam nga am na ku ci junj fan yi. am ñu mu mm-hmm. ci tudd. Mm-hmm. du saan gox. waaw la aji ne. la muy def. Mm-hmm. kay waajee ni ko bëgg a defee lépp mu ngi sama loxo. moom aji saar waaw. génnam ci réew mi détails yi ci gën a sew maa ngi ko xam maa ngi ko téye ñi ko génne ñi ko génne nañ ko génne fi ñu ko génnee bi mu demee ba génn lañ ko wax fam njëkk ko wàcc lépp maa ngi koy sama mais fu mu nekk kan ma ko yor <laughs> ak ci lan la yëngu mi ngi Europe ci utum asile gu metti la ne kañ man maa la ko su ko amulee mën na dellu si waat waaw xam nga aji bu amul asil dafay compliqué mais aji bii paa ñaari bóor lay tiireendoo maanaam aji day attaquer la scène politique sénégalaise benno moom bu yeboo ñu waaj seen bopp ña daan dem ci aji seen bakkee nañ ci xottu gerte. ci <laughs> Cheikh bi yaa ngi wax yu garaaw kañ maa la wax lu rut dañ. benno ñi daan dem ci aji. nañ hmm. waaj moom ajee ngi seen kaw. ñu tëgg complot bi. waa aji dafa bëgg présenter boppam comme benn victime du système maanaam état opposition dañ ko hmm. utiliser moom mu subir ay dommages ak yi ñenn ci opposition bi. dem ah, nañ ci moom aji de bu waxee ña fa daan dem fan yii du nelaw de ñu ci bëri seen kër dana yëngu. mais loolu moom nag. xam nga daan nañu wax aji yor na vidéo. waaw aji yor na vidéo nag. vidéo yan yooyu Sweet Beauté wala yeneen <laughs> vidéo moom ngeen di Sweet yor nay vidéo ginnaaw Sweet Beauté. Mhm. vidéo yi lan la. ah man kañ bañ toll ca xam nga daan nañu wax aji vidéo yi mu yor bu ko génnee. waa aji seen vidéo yi mu yor bu ko génnee. man maa leen mosal loolu ca laa yem ci ñi ko doon seeti këram. képp ku doon dem di seeti aji Sarr aji Sarr am na ay preuve ci yow. man maa la wax li aji géet kenn xanaa yàlla suturaal réew mi rek. lépp lépp réer maam base de données nga laq ak. <laughs> téléphone ba yàqu. <laughs> ah. mais dossier boobu moom. xam naa ci fan yi di ñëw. faaw am na benn parce que puissance sax bu ci sosal. Ah, ah, ah puissant bu mu ci sosal. Ah, am d'affaire bu puissant xaaral rek yàggatul. am d'affaire bu puissant nga wax de. waaw bu puissant bu mu ci sosal. bu nekkoon ci régime mu Macky Sall. déedéet. dana am d'affaire rek bu nekk ci secteur patronat bi baal ma yemagum ko <laughs> film bi de. c'est <laughs> Ousmane c'est Ousmane xam nga mbirum Adji Sarr nag man daf may day yóbbu sama fit. xam nga man mbirum sama fit daf naan dossier boobu. ah. avant muy agsi ci aji saar maanaam avant aji di nekk cible bi waaw fi ñu ko nasee kiñ ko bëggoon defloo ñiñ jaar pour contacter ko lépp man ko xam man ak bu njëkk bi ak yëpp waaw dossier boobu bokk na ci li ma ci li ma ci li ma génnuloo di wax parce que dama xamoon les tenants et les aboutissants hmm. xam ni ay feni kese lañ bëgg yàqee avenir ak yaakaaru toute une jeunesse hmm. waaw ba mu fa mu déparé laa la fa mu déparé. ca commencement bi ba fi mu. bañ ko nasee. kiñ ko bëggoon defloo. ñaari nit lañ ko bëggoon defloo ku ci nekk désisté kenn ki sax accepté woon na. Hmm. loo ko ci genn dem uti ko vacances agricole patriotique yàlla am ay nam-nam mu échec. dossier boobu Casamance la waroon tàqee période de vacances agricole patriotique maa la mayaat exclu kon missionnaire bi. jot na dem fekk ji Ousmane. déer dafa jotul dem. ah da jotul dem daroon natt bu fa Sonko nekkee mu ñëw. mu ñëw yàlla su yàlla yàlla napp moo tax moo tax moo tax moo tax fi yàlla làq ay mbiram. Mm. nangu rek. mais mu mel ni gars dañ koy fexeel te xamuñu ko. déedéet yàllaa ko yàllaa ko làq xam nga yàlla def noonu yéen a ngi pexeel Youssou waaye man yàlla du ma pexe. Mm-hmm. yàlla moom xam nga du pexe. yàlla day namm. boobu yàlla leneen la nammoon ci Youssou. ba ba mu yegg si fi mu jeex na. mais ba ki MC nee na mu ngi retour. Baye Mbaye waaw nam nañ ko de taalibe moom namm nañ ko moom joxe na itinéraire bu ñëwee face à face bu muy def. ak gis naa gis naa taalibe ah. yu bëri doon ko doon wër di seeti kilifa yi doon sàkk mu ñëw ndax Baye Mbaye dafa am liggéey yu bëri yu muy def ci wàllu ci Medina foofu ci ndaw ñi wax dëgg mm. yàlla. Mm. waaw parce que gàmmo gi ñu weesu day moom vraiment. Mm. absence am feeñ na fa bu baax a baax loolu daf ciy feeñ baax a baax a baax dëgg yàlla retour am demande la moom te même mu ngi ñëw ay ay preuve de déedéet gars yi du ki ngeen di tudd gis naa gars yi ci commentaire yi am ku ñuy tudd <laughs> du kooku am na keneen ku ngeen musta dégg turam te homme d'affaires la bu siiw déedéet femme bi ñuy wax nii maanaam candidate yi am na ke ah. nu mu tudd am na ku ngeen di faral di tudd ci média yi naan déedéet du kooku am na keneen <laughs> parce que boobu kay li ma ci xam moom dafa ëpp mais Cheikh Ousmane Cheikh Ousmane doy waar mais dossier boobu moom mooy tax sax ñu jàll euh, wax ci li nga xamante ni ki fi nekkoon ministre de la justice Ismaïla Madior Fall maa ngi gis nag benn benn xale bu inspiré wu moom moo koy définir IMF mu ne individu moralement fini. <laughs> gars yi doy waar gars yi dañu bëri inspiration inspiration bi dal na euh, euh, wax ja nga xamante ni wax na ko ci dossier Fulbert Sambou ak Didier Badji. moom mu ne yooyu bokk na ci yi nga xamante ni bi ko journaliste bi laajee li mu tontu mooy eh, dañ koy boole ci amnistie bi parce que c'est lié avec euh, des affaires politiques euh, wax bi bi nga ko déggee tontu bi eh, ndax amul lenn lu nga xamante ni sa xel euh, dem na ci. waaw xam nga man dafa lu ma jaaxal état bi Ismaïla Madior Fall nekkoon ministre de la justice du dëgg. Mm-hmm. lan la reconnaître moor yooyu. accident. waaw noyaat. nan lañuy jëlee benn dossier ñu ne accident la ñoom seen ñoom seen régime accident la ko reconnaître. Mm-hmm. ñu laaj la amnistie wu kirim nga indi dossier boobu. waaw. man loolooy man looloo man looloo attiré sama attention. waru ci woon mbokk de bu dee accident ñoom seen régime accident lañ ko reconnaître du dëgg. mosuñu wax waxu crime. Mm-hmm. nit toog di la laaj amnistie bu couvrir ay crime nga tudd ci noyaat xam nga olof day wax ni ku wax feeñ lu waral nga indi dossier boobu teg ko ci amnistie mhm. lu waral journaliste bi tëb des dizaines de cas tudd cas boobu spécialement lan la lu waral sortie bi lu waral dossier bi lu waral indi bi mhm. ak lu waral xam nga wax politicien du wax rek te yàlla tax